commission domaniale monsieur le maire Pape Bakary fay monsieur le maire Pape Maïssa Faye madame le ak président commission domaniale di de campagne ñoo initié meeting bii ba bëgg a wax ñëpp ne Maguette Sène waxul ne day investir boppam waaye ñooñu nga xam ne tey dañoo waroon a taxaw bëgg ma bëgg ñuy xëccoo président war a ñëw pour atte ñu ñooñu tey ñoo organiser meeting bii ne monsieur le maire ñëwal dañ lay samp dañ lay investir dama bëgg mu leer kon gor ñooñu sama nawle yu am jikko yu rafet yooyu ñooñu am xol boobu mënatuma leen a fay mënatu leen a fay lépp lu ñuy tudd ci bilan ci Malicounda di ma ca tudd yéene nga ca biir parce que ñoo ko bokk liggéey waa Malicounda bu ñu toogee woo ma ne dañ laa war a investir te man demandé wu ma ko am na lu tax damay jaajëfal les chefs de village responsable des sages du BISEC, ak mboolem kuy responsable bu nekk ci commune 22 villages je ngi leen di jaajëfal commune u Malicounda ba ñuy prioritaires dañ ne pour quatre secteurs moo prioritaire ci Malicounda fa la ñuy dugal suñu loxo ba ca jiitu di ban secteur xale yi xam nañ ko dama yokk nañ ndox mi Malicounda Bambara yokku ko Malicounda Wolof yokku ko Kër Ballolo ñetti forage yu bees taaxum am forage suñ ci mbaadaan am forage Malicounda Ngogom ak am forage ñu yóbbu ndox ma Rof yóbbu ko Pointe Sarène yóbbu ko Nianing yóbbu ko Warang ak Mbari waaye ko de manière spéciale à Falokh lii mooy sunu bilan ci ndox ndox mi yóbbu nañ ko Saly aérodrome yóbbu ko du Douté yóbbu ko fopp foo xam ne fii nit soxla na ndox waaye li tax gars yi ne dañ maa bëgg a joxaat deuxième mandat xam nañ ne ndox mi am na fu des des na Malicounda Est des na biir Saly aérodrome desaat na Falokh des na ay rëkku yu bari war a def. lii moo tax ñoom ñu laxasaayu wat ne ñu yéen bu dee 6 ans ngeen def lii bàyyi ku leen juróomi at courant courant beeg ndox mi ak fëpp lii moo waral deuxième mandat bi ñu bëgg. li ñu war a wax yow xajul ci meeting bii waaye dama koy tënk ci ñeent yooyu muy ndox courant éducation santé dama ne courant def nañ ci juróomi téeméeri millions 500 millions de francs CFA. def nañ ko ci Mbuuram yóbbu ko ci juróom-ñetti dëkk yóbbu nañ ko Taaxum yóbbu nañ ko Carrière yóbbu ko Sinthiou Mbadane Pël Sinthiou Mbadane Séeréer yóbbu ko Gagnant Gougou yóbbu ko Rof yóbbu ko fop foo xam ne fi amu ko ñoo ngi leen di jox rendez-vous ci mois de juillet pour fêter l'accès universel de Malicounda à l'électricité ñaar fukki dëkk ñaar fukki dëkk ak ñaar Rof moom moo desoon samp dañ ko taal ko moo des bi ñu koy taal dañoo bëgg mu nekk la fête de l'électricité waaye am na ne am nañ ne li tax ngeen laaj ñu deuxième mandat mooy courant bi am na koñ yu des bi seen aérodrome am na koñ yu mu des bi Malicounda Est Malicounda péage ak fii ñu def meeting bi ak segu am na ay dëkk ay koñ koñaan yoo xam ne des na fa moo tax ngeen wóolu waat ñu ne ñu ñëwal pour deuxième mandat agréé comme nous leen l'éducation. troisième secteur éducation salle de classe le mandat Nous avons de clôture mat na avons de clôture Nous table table chaque année nous avons fourniture millions dama avons amul commune def lu une éducation. waaye waaye xam nañ ne xam nañ ne may leen ñu ñu àggale dafa guddi xam nañ ne am na ay dëkk am na ay dëkk yu manqué glace ba tey yu manqué ay mille de clôture ba tey yu manqué ay toilette ba tey moo tax tey ngeen ñëwaat ne deuxième mandat pour ñu àggale nag ma ñëw ci quatrième secteur clé bi muy santé may leen ñu tuuti santé santé nekk quatrième secteur clé bu commune Malicounda dama ne juróom benni poste de santé la fekk Malicounda Mbaling Nianing Pointe Sarène côté bale côté bii nga ñëw Malicounda Bambara Malicounda Wolof Taaxu ñu tabax juróom benn yu bees plateau médical bi nekkoon six ñu yóbbu ko douze 1972 ba 2014 juróom-benn poste de santé 2014 ba 2021 juróom-benn poste de santé laaj leen ma juróom-benn yooyu fan la ñetti ñetti lañ war a inauguré lañ war a inauguré bii di ñëw muy Saly aérodrome muy Malicounda Mokhout muy complément waaye defaat nañu fekk nañu defoon. poste de santé bu Falokh defoon nañu def nañu poste de santé bu Fandane def nañu poste de santé bu Mbulem waaye yokk nañ ci Roff kon kay def nañ set sax set poste de santé de Cissé waaye waaye xam nañ ne ba tey am na poste de santé yu laaj ñu tabax maternité ca biir am na poste de yu laaj ñu def ay logement infirmier sage-femme ca biir am na ay koñ-koñaan yu peuplé yu laaj ñu renforcer le plateau médical yi soxla nañu fii ci Malicounda Wolof un centre de santé soxla nañu côté vers un centre de santé waaye soxla nañu deuxième hôpital du département de Mbour ñu def ko ci biir commune Malicounda lii moo adjoint au maire ñi ma conseil municipal bi ma leen di jaajëfal ñu ñu àndal ñoom ak responsable politique nañu monsieur le maire kaa ñu sampat la nga defaat yeneen juróomi at ndax ñu amaat yeneen yeneen juróom benn poste de santé wala yeneen juróom ñaari poste de santé kon quatre secteurs clés yooyu rek laa leen di jëlal di leen wax ne ñun suñu ambition lañ ko waxee woon ba ñuy laaj ba tey jii ci lañ nekk ba ñuy laaj dañ ne woon Malicounda gii ñuy laaj bu suñu intérêt personnel taxee yàlla bu ci jot waaye bu fekkee ne intérêt askan wi tax ñu koy laaj. yal na yàlla jox ñu ko ñu delloo ko askan bay gis waaye waaye ku gis meeting tey bii xam ne askanu Malicounda delloo nañ la dugal meeting bu toll nii musul am ci département de Mbour dama ne kon foofu laa yamale samay kàddu